Sénégal moo ne ci boppu Afrique ci wàllu koom-koom ak na muy màggee l'info dëggal ko ne Sénégal mooy champion ci Afrique subsaharienne jéego yi Sénégal def ci wàllu koom it laas nee na FMI rafetlu na ko ba tax mu jébbal Sénégal note yu baax a baax waaye ci Vox Populi ndawal FMI ci Sénégal ma nga naan tolluwaayu koom-koom bi baax na lool waaye nag yeggagut ca fa mu ne woon laata mbasum Covid 19 bi ak yeneen gàllankoor yi fi am bokk na ci li ko gàllankoor moom koom-koom bu Sénégal yéex gi ñu nemmeeku ci fukk yu toftal juróom benn waaye fi mu ne FMI nee na bu nu génnee ci 4 pour cent yi ñu ne ci 2023 8 virgule 5 di juróom ñett yu tombal juróom ci téeméer boo jël te la taxaw ci 2024 2024 booba ak élection présidentielle ba cay am ay farandoo yu Ousmane Sonko ca la wax ci yor yor bi ne sondage yëpp wane na ni Sonko moom buy bokk di gagné Maimouna Bousso Damboj ak Mamadou Lamine Dianteeg ñeneen neenu Sonko leer na ni téeméer boo jël ci doomi Sénégal yi juróom benn fukk yi moom la ñuy woteel booba jamono avocat góor li ci bés bi le jour ma ngay woo président Macky Sall kilifa dina yeeg àddina bi yépp ñu am taxawaay war ci mbiram Ousmane Sonko mi mu ne duggati na ci coma bu xóota xóot bés bi ne coma yi tàmbaleti na l'observateur it gis coma gu njàqare laxasu ñeel Ousmane Sonko ak tolluwaay wérgu yaramam yéenekaay bi joxooñ artuy awakaam waaye it nanu cay waxee di communication catastrophiste ba nu ca am niki pression bi ñuy teg ci état bu Sénégal libération it ma ngay wax ci mbiram Ousmane Sonko yeggeeñu kàdduy awakaam maître Ciré Clédor Ly mi ne musiba mbàbba kumba mën na caa am waxtu waxtu wu ne Falla Fleur moom waxtu bi muy xaar ñu jox ko atteem gën war a biral ëllëg ca la ko administration pénitentiaire di toppee jéem a génneb leetr te jaarut ca yoon loolaa tax yéenekaay bi nee na démb cib garde à vue la nekkoon grève de la fin bi mu ne woon fan yépp nag da koo néewal doole ba hôpital général Idrissa Pouye la mujjee fanaan waaye liberation nee na lépp lañu koy tuumaal da koo weddi du du Ndoye moom jamono ji ñépp di weddee direction générale des élections ca la jàppal tànk DGE ci biir la taxawee yéenekaay bi ma nga naan bu doon man maay tanoor ca Ndella Fall ma jox Ousmane Sonko fiche de parrainage ñàkk jox Ousmane Sonko fiche de parrainage yooya ak wérgu yaramu Ousmane Sonko moo tax ay Aïda Mbodj fi ci biir source a ñaawlu ko ba fu ñaawlu yem ne teg teguwut ci dëgg teg teguwut ci yoon coowal Mame ñàkk Niang Ousmane Sonko ci kanam yoon source a nee na jeexagut waaye seen la layoo ci kanam Cour suprême ku mayuwul daanu ko dàq yéenekaay bi nee na awakaay Ousmane Sonko dugal nanu seen requête ngir def pourvoi awakaay Mame Mbaye Niang def nanu ko moo joxe gut mémoire de défense am booba lépp la yoo yéene kaay bi nee na ku mayuwul ci weeru novembre la ñu koy amal ñiy xeex ngir ñu sàmmoonteeg ak ak yelleefu doomu aadama bokk ca ñoom Amnesty International ak ñeneen doxub ñaxtu la ñu nar a amal àjjuma ji réew mi quotidien ne seen càkkuteef mooy ñu bàyyi Aliou Sané ak képp ku ñu jàppee détenu politique ñu des ci wàllu politique ak la tribune mi ñuy xamal ne gëm sa bopp dafa gis ay njombe yu doy waar ci fichier bi ay njuumte ci clé USB ba rawatina waaye DG ya mujjee na kaa joyanti buñ sukkandikoo ci booba lépp yéene kaay jamono ci yéenekaay bi di Vox Populi ma ngay ñaawlu nanuy karee candidat wu opposition bi te booba jamono candidat wu nguur gi di Amadou Ba lu mu bëgg def ko Pape Demba bi tey moom juboo client yi Senelec yi la bëgg waral muy indi leeral ci réew mi quotidien ci li tax facture courant yi yokku waaye moom njiital Senelec ma ngay xamle ni client yi bokk ci tranche sociale te toll ci juróom benn fukk ci téeméer boo jël ci client yi Senelec te li ñuy jëfandikoo ci courant weesuwut téeméer ak juróom fukki kilowatt weer wu ne yokkute gi bokkunu ci waaye Sud Quotidien nee nu bëgg mooy ñu xool xalaat ana na la ñuy dugalee client yi ci tranche yooye ñuy wax Senelec nag nangu na ànd ak commission bi saytu walla courant xoolaat yëf yi ba ñu mën a wàññi facture yi ndaje mañ sekkoon démb lii la ñu ci yéenekaay bi yeggee Walf Quotidien it yeggee ñu la tukkee ja moomale ndaje nañu waaye ndaje mu tàngoon jër la ndax yokkute courant gi bu weesoo kër yi itam dafa sonal lool acteur économique yi booba boobaleb tension nag bés bi la jour nee na moom la Senelec di jéem ma wàccee waral mu sekk ma ndaje mu yaatu ak way jëfandiko yi booba jamono enquête di nu yëgal ne BP Jean Gazier yaakaar teranga loola mën a indi gàllankoor waaye fi yëg le pileer yéene kaay baa ngay wéy di laaj ana lu waral BP di rocceeku moom mi tegoon loxo bu fii nu ci juróom benn fukk ci téeméer boo jël ci Jean teranga booba Cosmos yoroon ci fanweer ci téeméer boo jël état bu Sénégal jaaree ci Petrosen moom moon fukk ya ci téeméer boo jël Ibrahima Dramé expert pétrolier nee na GTA ak Sangomar moom na xel yi dal sécuriser nañ leen problème bi kay fi mu ne mooy projet yi yéene kaay bi ma ngay faram-fàccee la Sénégal mën a def yi juddu ci pétrole ak gaz booba jamono alalu Senghor mucc ci njaay mënu ko naroon a jaay ca France Le Quotidien neenu Sénégal jënd na lépp ci téeméer ak juróom benn fukki million waral journalu Madiambal Diagne bi jébbal médaille d'honneur état bu Sénégal Sénégal moo jël raw gàddu gi ci ña seeni doom dugg ci gaal wutali Espagne source a nee na téeméer boo jël ci ñaar fukk ak juróom-ñaari junni migrants yegg ca Espagne janvier léegi juróom-ñeen fukk ya ay doomi Sénégal lañ booba jamono ci lañu bés bi le jour di xamal ni jihadiste yu Mali ña nga yëgle ni benn doomu Sénégal faatu na l'observateur moom delloog ñun taset benn ayubés gannaaw ba fa accident bu tiis ba amee di ñetti élève ya faatu ci accident wu tracteur ba l'observateur ne nu njàng meek njàngale mi dooraat na ci lycée taset waaye ci tiis gu mag a mag la ndongo yaak ña leen di jàngal ne ba tey démb ba nu koy atte moom jiitu réew Mauritanie ga woon ñaar fukki at la procureur ba sàkk ñu tëj ko yéenekaay yu bari xëy yeggee ñu ko booba jamono libération di nu yeggee xibaar bu neex ndax yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne gaal ga ba woon Kayaar ba waak léegi am na fukki fan ak juróom lu ko walloo ca daala ma nga yaboon téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay nit luy tolloog ñeen fukk di ay xale ñaar fukk ak benn ya di ay jigéen amoon na itam ñaari bébé waaye ñoom ñëpp yéene kaay bi nee na mucc nañ beneenub gaal bu bawoo kafuntin yaboon juróom fukki nit ak benn yéene kaay bi nee na it wallu nanu ko ñeent ca ña doon dawal woowale gaal libération nee na l'hôpital lanu teeree réew mi quotidien moom yàpp nu ci roppalaan yóbbu France ne ñu Sadio Mané bis ni tey moom moom club bi di Bourges foot ñu des ci football